muy chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di amaan mbégte euh, janoog yéen ci seen chaîne leader bile di Equivox TV tey nag euh, on a changé un tout petit peu de casquette ñëw seet si nag koo xam ni kenn dootu ko présenté ci réew mi euh, muy la grande voyante muy Selbé Ndom tey nag moom la ñu seet si fi nga xamante ni rek moom mooy diwaanam di yëmbal fas yéene waxtaan ak moom ci lépp li nga xamante ni rek actualité la waaye nag balaa ñoo xuus ci waxtaan bi dañ koy daal di nuyu. Euh, dalal ko jàmm ci biir Equivox ñu ngi lay nuyu bu baax Tata di la ziar di la bàyyi nga nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox TV. voilà di wax aouzu billahi mina sheytaani rajim comme d'habitude ah di ci teg bisimilah rahmaani rahim di sant yàlla rek sant yàlla bi may sant yàlla sama borom xam naa fu mu commencé mais mënumaa xam fu ma yem di julli ci sangu-sangu yi muy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah di sant sëriñ Touba mi nga xam ne sama baay moo tax ma doon taalibe Serigne Touba ah kenn ku ci nekk nag am nga xarit ci sa at àddina am nga wóllëre am nga ki la yàlla booleel muy sëriñ Moustapha Sy ku baax ku tedd kii maa ngi koy wax Seydi mooy sama sang kooku ab sang la ndax li ñu doon woyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa benn sëriñ Moustapha Sy rek lañ koy woyal fii ci àddina bi mooy toog. ci ñi fiy toog yëpp di wax amul kenn kuy toog njëkke yaa rasulullahi bu dul moom kon maa ngi koy sargal fu mu nekk di ko jaajëfal di ko ñaanal mu gudd fan ànd ak wér bàyyi Fatima bàyyi uh, Cheikh Tidiane si bu ndaw almaktuum capitaine macha allah bàyyi sëñ Babacar bàyyi ñëpp la moom ñëpp la uuf si Malick du ma doyal ci moom di ko ziar di ziar njabootam yëpp bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen di ziar di leen jëfal waa di kontaan nag ci yow vraiment xale bu yaru nga bu baax waaw boo ñëwee tam ma ne la ah tey de du ma def émission ah da ngay dellu rek doo woote doo kaas doo def dara waa di kontaan. bu baax a baax waaw. waaw tey ñoo fekk la nga def bu la tubaarikàlla macha allah jongo ma lool téye sa layo bi gën nga koo téye tey la nga bëgg a woon sénégalais yi ne seetkat yi yaa leen mën wala lan. waaw comme d'habitude xam nga yàlla mooy moo def ci man ma nekk la voyante la plus célèbre du Sénégal wax dëgg yàlla may seen yaay maa leen mag ah alhamdulilah ça va sant yàlla dëgg yàlla ndax bi may wax. jigéen góor sax ñemewu la wax asima ak jigéen fukki at ak juróom du benn fan du ñaari fan moo tax ma ne je la voyante la plus célèbre la voyante la plus jongoma waaw kay incha allah am nañ ci yaakaar ci yàlla parce que Selbé wonul boppam choisiruma ko léegi ma fekk may def tey maa ngi togg yaa sa maison bu la neexee soo paree ma tibbale ci ngañam dama mun togg loolu laa opté woon comme métier ak litt su ma la tegalee greffage danga naan kii du nit su ma la littee ak loxo danga naan kii du nit su ma la ràbbalee yére bébé danga naan kii du nit ba ci euh, kawasu bébé dama koy ràbb mbaxane it tout ah suñu borom moo ma may loolu don la waaw mais ah boo kenn du ko yàlla moo ma may xam-xam ma judduwaale ko sama papa am juróom benni doom yu góor musul am doom bu jigéen ma nekk taawam mu am ko ko ko wax ne ko ëmb bi rek di nga xam ne gan a ngi ñëw ci ëmb bi sunu borom def mu am këru këru boppam te da daan luwe moo tax fukki doom ak ñeent yi mu am xaw ma juróom benn faalewu ci kenn yaru ci kenn man doomu la yar fonk ma nag ba bi mu gaañoo la sama grand frère bi gaañu daaw ne ma kon lii moo taxoon paa bi fonk la du nangu ku ma ku ma dóor man daal lu ma lu ko neex rek neex na ma man aussi lu ma neex neex na ko kon di sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. tata réew mi actualité yi bari na rawatina li nga xamante ni moom mooy làmb ji fan yi sëriñ saa ngi génn ku nekk di wax. di jëmale boor bi ñii di wax di jëmale boor bee mu am ay làmb yu am importance yoo xamante ni mu ngi suñu kanam waaye benn bi nga xamante ni da cee gën a fës muy combat bu dox diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy Modou mu doon euh, combat boo xamante ni diggante Pikine la ak parcelle tension bi bari na ci diggante bi ndax diggante Pikine tam Parcelles taxuñu ko sori noonu ba dernière face to face bi Ama ñëwul coow li bari waaw xam nga maa ngi dégg ñuy kaas naan Ama ñëwul mais moodloo aussi defoon na ko fi quand même nañu nañu arrière tuuti te làmb moom nu la sëriñ diktal rek ne la nangam rek noonu ngay defe xëy na daal am ñu ko ne bul dem parce que jàkkaarloog gàmb bi face to face bi mujjul am dafa raté am na yeneen yoo xam tam maanaam raté na am na benn boo xam ne maa ngi fàttaliku Modou Lo daa ñëw ba ci bunt bi ñu toog di ko xaar dafa retourné waat delluwaat parcelle. kon maanaam bu euh, Ama Baldé absenté rek euh, maanaam nañu dal te xam ne làmb moom kenn ku ci nekk li la sa sëriñ wax rek loolu ngay def sûrement sûrement sûrement sûrement parce que nit ki euh, Ama Baldé dafa offensé Modou Lo ndax bi mu ko gisee nee na c'est la première fois mu gis Modou mais su xamoo ne Modou Lo noonu la mel du ko jaral mu fay 2000 francs ci sëriñ maanaam kon maanaam waaw da koo xeeb da ko da daal loolu gis naa mu wax ko kon maanaam làmb ji moom làmb ju neex lay doon incha allahu rabbi xam ngeen Selbé nag dew ma kër Modou Lo ma kër Ama li may dunde Ama joxuma ko Modou joxuma ko président de la république bi fi nekk tey waaja dem muy Macky Sall joxuma ko futur président bi war a ñëw joxuma ko man yàlla moo may jox danga may woo Mercel ba ma ne ah mu ne ma ah dama bëgg nga seetal ma boo nekkee France ma ne la deux cent cinquante euros Allemagne da koo ëpp États-Unis da koo ëpp maanaam États-Unis trois cent cinquante dollars lay seet parce que li may def dama ko mën day mel ni dama la xam téeméeri at suñu borom moo ma defal loolu yaa ngi toog ma wax la li ngay xalaat nga ne ma dëgg la te bu ma xuusoon na yow di nga xam ne lépp dëgg la lu ma sunu borom may la pettaaw nag ku ci def leneen lu dul lii naturel bi rek mënoo dara kese naturel ay dóor la béjjën ba ca nag ba lay jóge wala ca xarma béjjën fu muy jóge voilà dañoo gis ginaar am béjjën en général béjjënu nag la ñuy jël di yëngal walla ñu jël béjjënu xar di yëngal loolu c'est faux tissu ba ngay def ca béjjën ma day jaay tey boo jëndee boo jëndee tissu bu vert jaune bu rouge bañ ciy laxas drapeau Sénégal la jox ñaa ngi dégg pettaaw yañ cay def mooy lii maanaam sunguf sa ñuy def ci biir ci garab lay jóge béjjéen waxul nañu arrêté dóor yi nañu seet te xam ne tey neex na waaye suba dañuy tara euh, euh, laloo suñu loxo ndeyjoor ala kulli xaalin waaw di gën a jaale mon frère Bougane Gueye vraiment ah di jaale sam bopp encore moom mi ndax euh, xëjoon na fi sekk uh-huh. tey lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy wax boobaak léegi ci combat bi ku ne naan kii mooy daan kii mooy daan tata tey ngay tëjee seen gémmiñ waaw da ngay gis koo xam ne sëriñ boo xam ne day taxaw waaw moo Lo mooy daan nga gis ñeneen ñoo xam ne dañ naan Ama mooy daan waaye man dañ maa wax tur te man li may waxal du fo aw ma sax temps boobu ndax maanaam kuy foo mooy dem ci kër mbër taxaw fa di ñaan fukk wala nga dem taxaw ci kër ministre di ñaan juróom man def loolu parce que je suis né noble ku ma xool xam ne man noble laa vraiment kenn gisuma fenn du bureau ministre du fenn mais làmb ji moom ci kattanu yàlla bu fekkente ne dina am te am nañ ci yaakaar ndax man dañ maa wax tur barakallahu keneen ki war daanu moom dafay décourager day toog day toog jël loxo yi teg ko ci ci ci tànk yi nii dafay décourager ah bu jegesee bu làmb gi desee ñaari fan ñëw leen ma wax leen ci kàttanu yàlla ndax mais ndam moom day am na moom ba pare am na bu yàgg ndam sunu borom def na ko dañ maa wax tur te maanaam waaw man ñi may waxal na agresseur ba defoon dugg sama biir kër maa ngi takk caméra def sama kilo jël rasta yi takk bu fii jël la lacoste sol di togg añ mu ñëw ne naa ko may xaalis mel dañ ma ne xool ko ma siggi xool ko fii am cicatrice billahi wallahi watallahi laa am parce que jullit laa yàlla mi nga xam ne dara tëw ko mel dañ ma ne sel ba xoolal waa ji ma xool fii am si cicatrice ma ne ko li ma am jox naa ko samay rakk te dama ko naroon a may nga xam ne su ma ubbee sama caméra li ci nekk ëpp na un million ñaari portable yu cher ah ma ne ko aw ma wan ko ginnaaw ndekete fii côté bii fii ak côté bii fii def ko roof maa gis mu dëll rek waaye xaw moon lan la bi ma ko wanee ginnaaw lañ ma ne Selbé doo xool kii ma geestu ko rek billaahi wallahi wa taalaa ki gis muy rocc ni ci laa ko yuuxu ne ko demoo damay woo commissaire léegi police la fekk génneel sama kër mu ne may ma ndox ma yëkkati frigo ubbi jël ndox di ko xool jox ko ne ko génneel sama kër man dañ may won bokkuma ki naan dama ko damay damay nàngam man du ma tatone làmb ji liñ naan wërëwa dem na këng waxi mag dem na dañ taali wallahi jël am na barki Seydina Mohamed diggante Eumeu Sène ak euh, tafaatin sax boo booy xool mooy gën a neex mooy gën a neex làmbi Modou Lo ak Ama Baldé waaw bee moom du yàgg noonu mais bii xeex la te bu ñu amul chance kawo day am barakati laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah man dañ may won làmbi Eumeu seen wallahi ak tafaatin xeex la xeex xeex la te bu moytuwul jël bi kaawoo lay doon man sel bi may wax àddina bi de laajuma la dërëm yow it fayow ma dërëm xale nga di liggéey soo ma woowee te ma xam la war naa laa jox ci li ma yàlla jox ndax micro bi ngay yore moo tax ñu lay fay komba bu ñëw rek ci kàttanu yàlla lu ma ci gis dinaa ko wax mais combat Modou Lo Ama man Selbé Ndom nee naa jël am na bu yàgg du lu nit mën a fi effacé nag na sëriñ ci bàyyi kàcc yu ñu kàcc naan ay dëpp làmb amul ay benn dëpp làmb amul yàlla boo xasee ne kun jeex na te ki ma takk gis ñu takkal morso bu verte bi loolu du deñ ci diggante Ama Baldé ak Modou bu làmb ji desee waa kuñ des te boo boo boo gisee yàlla may la nga tëdd gis ñu defal mbër maanaam benn pettaaw bi ñu teg ko ci kaw kawam sax xamal ne victoire la soo gisee mu sol cap victoire la Balla Gaye liñ ko def mi ngi ci tànkam yi liñ ko yàqee dañ ko yàq tànkam yi maa leen ko wax man Balla Gaye sama doom la dama doon dem seen kër Modou Lo ñëw na sama kër Ama Baldé damay dajeek moom ci mbedd Ama Balde yaakaar naa waaw ñëw na sama kër ci buun mais Balla Gaye musul ñëw sama kër Modou Lo mu ñëw sama kër ak yeneeni mbër barakallahu waaw guy gi bi muy bëreek rëg-rëg dama ne ko na génne sarax bu génnewul sarax ma ci dara ah alhamdulilah sunu borom may na ma aussi bi muy bëreek rëg-rëg woowu ma Sa Thiès ma rëg-rëg yàlla mi nga xam ne dara tëw ko ah wax naa ko ne ko wax naa ne leen damaa gis Sa sëgg ci bërigo te boo xoolee daan bi sëgg la kon Selbé Ndom fii ci mim réew damaa bëgg ñu ñaanal ma rek gudd fan ak wér ndax li may def mën naa ko li la jëndal kër yóbbu la màkka nga di ci dund pendant 15 ans ku dul sëñ Moussa Fassi mayu ma 100000 kenn mayu ma. sëñ Moustapha Sy Wally Seck moom mooy may xar sëñ Moustapha Sy moo mooy may xar mu yëkkati alalam di ma jox kon maanaam dara jaralu ma dara te lu ma ci amutoon ba tey ah yaakaar naa li ma ci am balaa ko ci seetkat di am hmm, di yomb mais ñaari combat yi moom Modou Lo Ama Baldé jël am na toog la toog waaw toog toog la ki ma gis dafa toog waaw taalibe sëriñ Tuuba laa te laa ilaha illallah laay waate muhammadu rasulullah wax dëgg yàlla moo nekk sama biir xol bi ki dem ba yàlla defal la sa poojub càmmooy xam nga ndeyjoor lañuy ñuy néew càmmooy bàyyi féete kaw càmmooy bi am mbind alquran ma wone ko Sénégal sunu 24 ah yaakaar naa romb naa fu foo xam ne damay toog naan nangam Balla moom dama ko faraloon a faral a ba buy bëri nit sax duma xaar sax yàlla won ma damay taxaw ne Balla Gaye ne Balla yàlla won na ma ci tànk yi lañ ko def waaw waaw parce que bëreem ak Bombardier billaahi wallaahi watallaahi dama gis mu arrière tànku càmmooy bi Balla Gaye xoolal sa tànku càmmooy boobu lu ci yàqu rek ci tànk càmmooy bi la yàqu ma dem ci père jabaay woo ko téléphone ne ko Balla Gaye day daanu jël leen xeer dóor ci tànk bi ne tànkam bi ma gis mu ne ah ne ko du dañ bu mu baree ma dem xam naa Balla Gaye gëmu moon yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ma dem fa seetu ko toog néeg yaayam ñu ne Balla Gaye nekku fi te Balla Gaye ngi ci kaw saatees na ma mi ngi ci kaw booba bëgguma woon dara lu dul gis Balla Gaye rek ba jël xeer dóor ci tànk bi pour bëre bi bañ a am ndax xam naa ne bu bëreeg Bombardier incha allah rabbi Bombardier dina ko daan ndax Balla Gaye da di sama mbër yàlla moo ko def damay topp Balla Gaye ba muy bëreeg Modou Lo njëkk laa topp Balla Gaye gis mu sooy tëree loxo moo jóge ci asamaan si mu def ndaa ñu samp Balla ma topp ko di ko wër ba dem këram di buuxante ñu ñuy dóor maanaam jaara aaj ñoo ma yóbbu di ñu lu ma gis ne ko defal ndànk da ngay doon roi des arènes da ngay dem da ngay dem mujj bu ma gisee day jooy Balla Gaye ngi dund maa ngi dund buri bàcc la xam na ma bu baax yaay Balla Gaye xam na ma bu baax saa yu Balla Gaye bëriwaan ba pare ba yàlla may ko ndam dama fay dem yaayam mooy yëkkati ñaar fukki junni may ma Balla Gaye ngi dund yaayam ngi dund maa ngi dund ñu ñëpp yàlla ñu gudd fan kon maanaam Selbé Ndom du ay foo Tapha Tine ak Bombardier Tuubaa Lamine Samba ma ma ne ko deret dina tuuru Père Khadim Samb taxaw ne du tuuru ku ne wax yaakaar naa ba ñu léewtoo coupure courant ba sax dama ko wax sunu boroom defal ma ko noonu kon maanaam selbe wax dëgg yàlla su ma mun toon ba tey bàyyi naa dem ubbi sama restaurant jaay sama ceeb <laughs> jaay samay supp lu ma la ci toggal nga kontaan mais sunu borom moo ma may du tax nag ma tiitaru wala ma beew lu ma man la te bisu combat ba ñaar yi ma leen waxagum su ma fi gisaatee Siteu ak Lac de dinaa ko wax keneen nag keneen su ma ci gis naa ko wax mais ñaari combat yi daal moom suñu borom waddal na ko moom te man duma wax diwoo ma woon yàlla laay wax parce que dama bëgg yàlla gëm ko wóolu ko doyloo ko duma wax suba ba ngoon te tudduma yàlla nañu xaar sa ndam wax ki daan avant combat gi. bu baax kii am ndam xaar leen ma maa leen ko promettre dama xam ne heure bi soo ko waxee supporters yi la ñuy découragé dañuy tiit boroom làmb gi sax wax naa ko kan mooy daan Baye Ndiaye nee naa ko diw mooy daan Baye Ndiaye ci boppam ki ma bokkal ndey ak Baye rek ko Aziz Ndiaye woo naa ko wax naa ko ko xam na ko mu ne ko ndax xam nga ma mu ne ma xam naa la confirmer ma li ma wax kon maanaam duma fo te bu ma jógaatee ci làmb ji seetkat dootu fi wax damay bañ a wax léegi tey bu subaa ñu piraté ma am na ñoo xam ne saa yu ma waxee dañuy appuyé wu ci li ma wax wax laa même chose kon maanaam ma it <laughs> damay liggéey dama yorul waajur wu góor aw ma waajur wu jigéen aw ma borom kër li may liggéey ci lii nga nekk Europe woo ma ma seetal la darajey Seydina Muhammad moom laay dunde mënuma taxaw ci bureau nit naan ko may ma juróom wala ma woo nit Baye Ndiaye daal yàpp naa kook assis waaw ilimaan laam sax dama ko rusa woo wallahi al azim sax daf maa mere li tax mu mere ma yow dooma woo dooma ma woo te tey moo ko ñaanoon un million wallahi wala oto mu may ma ko mais man maa ruus ilimaan la yàlla moom li ma yab Baye Ndiaye yab ko Aziz Ndiaye wallahi yabu ma ko ilimaan laa du dama koo bañ mais dama ko mënul waaw lu ma am maa ko liggéey ku ma yéene da ngay def ni Wally sekk sama saaw bu góor boobu nga xam ne dama jékki-jékki rek ñu woo ma ne ma waalee ngi lay may xar ma yuuxu beneen ba moom bii mujj nii fekk naa ci buntu kër gi ndax daa fekk ma dem Caaroy xam nga man fépp laay dem aw ma fenn sans intérêt damay dem Caaroy nduggi damay dem yoof jëndi jëndi jën damay dem poste Caaroy fu ne laay dem aw ma fenn sans intérêt aw ma gàddu koor xam nga ci buntu kër gi fekku leen fi kenn man ak yàlla ak yonent bi xanaa di looloo wóor ma jékki-jékki rek taxaw ci bunt bi rek di wàcce bagage rek gis xar ma fekk ma jënd samay bagage yëpp maa yuux ne waaye xale bi nu ma koy def di ko ñaanal disque dooram bii suñu borom. tool yu bari na ci li nga xam ni moom mooy Wally Seck disque d'or disque d'or disque d'or bi am na ko te sonn ci yàgg na sarax bi moo doon mu jël benn booli booli ñu yëkkee mbanay def ci fruit di pomme di orange di banana maanaam wi rek teg ci ay canette boisson loolu moo doon mooy sarax Wally Seck loolu laa waxoon na ko def disque d'or bi dama ko fekk ci terrain te booy xool Wally sekk moom moo mujjee dugg ci woy bi ni ma ko gisee ci terrain laa ko fekk mu sol ay goda sama ay kawa sama tenue bu muy fu futbale damaa ñëw rek mu taxaw rek ma daw ba génne terrain bi applaudissement yi woo la mu war a daw dawal naa ko day am disque d'or te du sonn man Selbé maa leen wax loolu dew ma nag kër waali wax dëgg yàlla sama doom la dew ma kër waali déggantew ma ak moom bu ma soxlaa daal moo naan kar ndax mi ngi ak sama numéro waaw wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla ndax man dama dis gor li tax ma naan leen je suis né noble man xaw ma topp nit di ko tarbiyu te yàlla nekk fi duma ko def du sama jikko ku may bañ nga bañ ma ci waaw dina gàdde daal Wally Seck am disque door Selbé Ndom a ko wax Selbé Ndom taalibi Serigne Touba soppee Serigne Moustapha Sy xanaa adresse bi leer na dëkk yëmbal benn baraak quartier am sa mbaj fii yëmbal marin boo taxawee ci marché benn baraak bi tëli karo ba ñoom ñoo ko tuddee tëli tëli Selbé man mënumaa ree boo taxawee are Fass Mbao kalandoo boo leneen kër Selbé ñu indi la kon xanaa kon man mënumaa riir moo tax sañu maa def dara ci wàllu politique bi gis nañ situation bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko jamono ji dugg ginnaaw biñ ko sax euh, juge bi mayee dëgg pour ñu dugalaat ko ci list yi mais teewu ba tey mbir mi dafa xaw a taggatenge ci côté am dégg nañ sax dafa mu ngi dans le comment ndax grève de la bi nga xamante ni def na ko tey gis nga Ousmane Sonko bokk ci li nga xam ne moom mooy élection bi ci pétaaw yi. ci kasom boobu dama koy waat ci billaahi wallaahi wa taalaahi man Selbé Ndom nag mën a génne Ousmane Sonko. faatu faatumata bintu rasul nga tudd Seydina Mohamed am na Fatima Zeynabu Roqaya Umu Kalsum ñeenti doom yu jigéen waaye Fatima la ci gën a bëgg ndax bi mu waree génn àddina daa fekk Fatima nekk ci biir mu dàq ko mu ne malaaka bi may ma tuuti ma génn ba génnee la ko jël kon maanaam sama doom nga mën naa laa jur rus naa taxaw ak yow di wax loo xam ne maîtriser wu ma ko billaahi wallahi watallaahi man dong maa mën a génneel sarax Ousmane Sonko yàlla bu ma am dara ci Seydina Muhammad na ñëpp dee dem àjjana man ma dugg safara su ma ko defaloon tey sarax balaa élection yi dina génn te dina jóge fii mu ne ñëw fii mbaxane mi ma gis Ousmane Sonko sol ak yére bi bu nekkoon damay génn dem Dakar dinaa ko jënd boo fi demaatee émission ma sol déggoolu ma la nii laa gis muy def wallahi nii laa gis muy def fi mu taxaw noonu ci kaw pont bi billahi wallahi watallaahi li ma yonent bi yal na doon ngelaw lima wër kaaba gi tawaaf labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk yal na doon ngelaw man maa ko mën a génneel sarax woonaa jabaram xadi jotuma ko xadi kebe woonaa mooy aaw buuru këram <laughs> duma ko duma ko rappelé waat cousine am Mariama wax naa ko loolu laa man xaw ma benn waa pastif xaw ma leen te duma ngàbb sama tànk bi kër gu ne ma ne ndax Pastef nga dëkk wala noo aw ma jot boobu dama prouvé dama marqué suma empreinte mais man dong maa mën a génne Ousmane Sonko ci kaso bi ni ma génnee woon Karim Wade Karim Wade maa ko defal sarax mu génn te ka ma ko wax monsieur le maire booba barke laa ilaha illallah mi ngi dund moo volontaire u génne xaalisam jox ma ma dem jënd la moo da jënd def ko na ma ko war a def yàggul mu génn man doogu maa mën a génne Ousmane Sonko sarax Selbé Ndom laa tudd doon taalibe Serigne Touba lu may tiit amul naa ko bu yàgg fii 2012 maa toj réew mi duma ko dëbbate nag comme ni koy jaaykat saabu ba di waxee bu ma dëbb réew mi kat ndax boo ko dëbbee ñëppay ñàkk mais man Selbé Ndom bu ma ko defalee sarax ci kàttanu yàlla dina génn donc du ay wax usman Sonko nee naa la nga bàyyi xaru bi jullit nga te yàlla dafa tere xaru Ousmane Sonko bàyyi li nga nekkee ku la ko xelal baaxul soo waree génn di nga génn du xaru moo lay génne boo deewee tamit ñaari fan lañ lay jooy coow li tàkkee say doom ñooy ñàkk say jabar ñooy tënj Ousmane Sonko bëggul raaye soo ko raayee du baax Ousmane sunko danga koy joxoñ man musuma raay Ousmane Sonko lii yëpp waxoon naa ko ne ko moytul mon frère man dong maa tudde Ousmane Sonko ibadulaay saalihin man dong maa tudde Ousmane Sonko xayru ummatin uxrijat li naa si ndox Ousmane Sonko rek laa gis mu julli ba fii am tache bu ñuul macha allah iliman laa mit gis naa ko fii tubaarikàlla a ah, kon kay ay nit ñu baax lañu lan lan la lu xew ban problème la nga am yow Ousmane Sonko maanaam da ngay xaru da ngay de faim bu yàlla ne doo doon président doo ko doon affaire bi dafa am ran bu Karim ñëwut bu Karim ñëwut parce que Karim <laughs> kenn xamul ci lu mu nekk déggoo li ma la bu Karim ñëwut Ousmane Sonko man Selbé xaw man ndax day dugg ca palais ba wala wala du ca dugg yaa ngi dégg waaye fee mu nekk dina fa génn man Selbé Ndom maa leen wax lii barke laa ilaha illallah du damaa na yàpp de boo toogee léegi ma yàq xëlwa laay def reer xam nga xam nga xëlwa toggub naar la kon xam nga xëlwa naar nga damaa am ay mbokki naar yu yore ay ay yi ma xam xëlwa ñu ma koy toggal may lekk déggal bu li ma la bu baax lu may ragal fi mu ne amut ndegam ba may xale laa ragalu toon astimaak nag ba sama bopp bi commencé am ay benn benn bee ma di ko gis bàyyil xaru bi gëmal yàlla fonkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay tiim di ubbi kaamil Ousmane Sonko da ngay toog di ubbi kaamil di jàng kon yow xam nga ne xaru baaxul daganul ku la ko xelal bul ko def di nuyu ndeysaan jàmbaari Ousmane Sonko ji dafa doon jàmbaari Serigne Touba ba pare ki sant Njaay te ñu tëjoon ko déedéet du El Malick déedéet du si ñooñu Serigne Ousmane Sonko ba rek te ñu tëjoon ko te mu tuuti rekk te ñu tëjoon ko muy grève de ñu jële ko woon këram Cheikh Baara Ndiaye sama doom ndeysaan dañoo dajee ci gàmmu Serigne Moustapha Sy bi mu na ma yaay selbe ma xool ko mu tuuti ma ne Cheikh Bara xale la maa ngi ko doog seetlu nii maa ngi koy ñaanal yàlla musal ko muccal ko ci darajay Seydina Muhammad ndax jàmbaari Serigne Touba la ma fekk ko nag ci nga xam ne àddina bu yëpp ginnaaw yàlla yonent bi ak Serigne Touba moom laa fi gën a bëgg muy Serigne Moustapha Sy kon Cheikh Bara Ndiaye maa ngi lay ñaanal loo bëgg yàlla la ko yàlla defal waaye waxal Ousmane Sonko soo ko bëggee ma bàyyi grève de faim du yëfi jullit na bàyyi waay. yaakaar naa ne dina génn fii mu ne fii la ne dina jóge fee jaar nii ci kaw pont ñëpp di ko gis di apprécier yuuxu kay loolu kay neex na. yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo Selbé Ndom nee na li mën a génne Ousmane Sonko ci loxoom la ne maanaam sarax mu mu ko mën a génne foofu mu ne Tata dañuy tàggoo rek nga wax ñu tey lan nga lee supporteru ñaari mbëri Ama Modou Lo rek ñu daal di tëj bu desee deux jours incha allah ñu ñoo ngi wax ñu kan mooy daal. waa fair play ndax ki war a daanu daanu na bu yàgg mi ngi dox nag di wax li lekk di añ di reer di tëdd ni nit di waree doon président di ko doxe ay at président yàlla du ko fal tey de man ngaa nekk ak moom ñaari at ñetti at ndax mille 2009 laa wër Macky Sall ba gis ko ne ko tu seras le quatrième président de la république Macky Sall ki dund xanaa lu waaye mën a kàcc kàcc doo kàccal président ndax <laughs> bu ko yëgee day woote waa brigade de recherche ñoo taxaw sama buntu bi gaare seen oto yóbbu ma 2009 laa ko wër ba gis ko fii juma laa yéen ne ko yaa doon quatrième président ku ñuy wax gaajo moom ma booleeg moom te gaajo ci oto laa dajeeg moom ne ko yow mi daa mel ni ci Macky Sall nga bokk mu ne ma ay soxna si noo ko xamee ma a ko leer na mu ne ma wax nga dëgg mën ne ko dimbali ma foo ko gis rek nga wax ma jox ko sama numéro téléphone jël numéro téléphone am bi mu ñëw yëmbal fii di jaale ci Serif Ousseynou Laay la ma gaajo woon na ma président ñoo na ma daw buuxante garde yi di ma buux mu la leen bàyyi leen xam nga maa fi dàq wax yàlla dafa def ba su ma waree wax su ma ubbee fii sama gémmiñ nit ñi dañ naan sama pot gi dafa am opaar la ma ne ko yaay topp ci ab Ablaye Wade rek mu téye sama ñaari loxo ne ñooñ bàyyi leen téye sama ñaari loxo yi loxo Macky daa nooy népp tëyu ko ba mu dëgër xulli ma bëri ne ma yow la kan ma ne ko man la Selbé Ndom Ablaye Wade bu fi génnee yaay toog bu suñu borom jox na ko yëfam mu téye ko président noonu la nit ki loo war a doon boo seetloo nit ñi nit ñi dañ lay xool rek foo romb rek dañ naan bintu rasul bintu rasul nga naan ah ñi defe ne da ngaa am bës fekk yàlla am na lu mu la naree def loolu mooy mbiri yàlla du xëy rek def nit dala jooni jooni yàlla am lépp programme la su yegsee rek nga daal ciital kon maanaam ah bu soobee yàlla am nañ ci yaakaar Karim wàdd bu ñëwee ñu seet ba xam bu fekkente ne ñëwul parce que Amadou Ba kenn mënu ko bañ aussi Amadou Ba déggoo li ma la wax man ba ma koy wax boobu Ablaye Wade mi ngi ci pale bi pro problème Karim Wade wallahi nee naa ne damaa dem màkk sama jëb yi tegu na ci kaaba gi ma ñoppate ci kaaba gi am chance fekk muuruñu ko lu ñuul parfum lañ ciy def ba affaire bi def comme daakaande man na ci ñoppati lekk mu fi xat ak parfum suñu borom may na ma loolu julli bisu iid bi zéro mètre ci kaaba gi nii di ko mbëkk damaa bàyyi ba gaa yi war a taxawal rek ma buruxlu rek dem balaa laa naa di génne ñu taxawal force dañ lay bàyyi nga julli beneen bi maqaama Ibrahima laa jullee ah alhamdulilah am naa cër ci yàlla wax dëgg yàlla awma awma temps sax di créer wala dara ndax dama naqari leer awma droit mais bu fekkente ne Karim Wade ñëw na ci kattanu yàlla am naa yaakaar ci yàlla ne moo war a topp ci mag Sall ndax waa ndax dama gisoon mu yéeg ci escalier di gestu askan wi te tey Karim Wade bu nekkee président yow doo mer yaay booy bii du mer kii du mer ñëppay bég ay yal na ko yàlla def keneen tam ku nekk président ñun nañ ñu dimbali ndax fi mu ne nii président Macky Sall bañ lay far neex na président sa ay gii dem na ba kilo jën nekk huit mille francs gambaas am na dix mille am na neuf mille ñun amatuñu yaboy te bu la ci yaboyoon dàq ci coof yaboy benn trois cent benn carotte fanweer ay ñun ñi nga xam ne amuñu kenn ku ñu jox ñu yàq ginnaaw yàlla yonent bi ñu yaakaar lii mënuñoo dem ci benn bureau di fa ñaan gaz seer na këriñ sax buñ la jaayee ñaar fukk nga yuuxoo waaye ñu ñu amul ku ñu jox dépasse fu ñu jëm kon keneen kiy toog na xam ne sénégalais yi sonn nañ xale yaa ngi dem ci géej gi sànq la publicité ay africain ay nit ñu ñuul ay naar tiim leen kenn ku ci ne dañoo takk sa loxo buum nga tëdd te ku ci xef ñu dóor la fetal lépp ndax bëgg a tekki sunu ñaata doom ñoo dee ci géej gi vraiment man damay damay damay dox ba mu yàgg tali tali neex na torop ndax ilaa Touba bi Touba da nga fa xëy di dem ba guddi ngay doog a yegg léegi deux heures de temps doo ko def mais nag tali kenn du ko ñaag di ko lekk nañ wàññi dund bi wàññi gaz bi ah, dafa metti quand même loolu laay tàggoo di ñaan yàlla Sénégal def fi jàmm sunu doom yi dem géej gi di leen lekk ngir yàlla yonent bi waxoon naa fi Macky Sall na def quatre vingt dix nag su boobaa géej gi dootu lekkati tali yi dootuñu reyati ndax jinne yi dañuy fàdd tey jii boo amoon sa doom toog fii di foofu moom darajey laa ilaha illallah muhammadu rasulullah oto ñoo bëgg koo fil nooy def duñu seetaan oto yi di rey seen doom yi dawal dafa am waxtu dafa am waxtu woo xam ne jinne yi dañuy toog seen doom yi di focc ci tali bi am na ay côté yoo xam ne dañ faa war a tuur deret oto boo gis mu këpp jinne yëg këpp man Selbé maa ko wax ay parce que dama ko gis du may waxantu awma jot musumaa dem États-Unis musumaa dem France musumaa dem Allemagne bu dul Màkka waruma fenn kon maanaam sama réew rek laa am bu ma sañoon Sénégal mooy dàq sax Amérique wax dëgg yàlla bu ma sañoon sama doomi réew kenn du ci génn di dem parce que man bugguma dara am Sénégal lu dul jàmm ak salaam keroog ba réew mi bañ ko naree taal wallahi la azim côté bii mooy sama préféré ma gis tàkk-tàkk bi ma ne yii ñii dañoo taal war a taal Sénégal ndox moo ci këpp gars li ñu naroon fii ci réew mi ay bakkan doon na ci wodd waaye yàlla wis ci ndox mu sedd kon yàlla yàlla na ko gën a yokk Amadou Ba nag li tax affaire am du métti ba mu commencé rek dama gis ñu wicc ko ndox moo tax fal biñ ko fal amul xeex amul xuloo amul dara Macky Sall nee na bàyyi na ah ñu ngi koy gërëm di ko sant. waaye man de mere naa ko ndax sëñ Moustapha Sy moo ma gënal Macky Sall. kontaan nañ am chers fidèles euh, internautes yaakaar naa ni tey waxtaan bi euh, neex na lool te njëriñ kese la tey moom Tata Selbé moom la ñu seetsi woon fi nga xamante ni rek moom mooy yëmbal yaakaar naa ni def na révélation yu euh, bare bari ci li nga xamante ni rek moom mooy actualité réew mi wax na nag ki nga xamante ni moom moo nar a daan ci diggante Modou ak Ama Baldé mu nekk nag euh, mbir moo xamante ni euh, waxagul sax ku leer dans deux jours incha allah ñun Equivox dinañ ñëwaat fii ci moom daal di koy dégg suñu ay micro mu wax ñu kan mooy daan ci diggante euh, combat boobu di leen jox dig daje incha allah rabbi très bientôt ak beneen invité d'ici là portez-vous bien merci.